ñàkk dégg ñun li nu yitteel ak li nu tax a jóg te yaakaar naa yéen ñëpp man ngeen nekk témoin ci ne keroog ba may wax dama ni fal askan wi jógul contre président Macky Sall jógul contre président Idrissa Seck waaye day dem nag te incha allah dara du ko téye. Euh, yàlla mooy dogal ay mbiram euh, je suis convaincu que président Idrissa Seck dañ ko induire en erreur su du woon loolu kàddu yi mu yëkkati am naa yaakaar du leen yëkkati ndax li mu wax su fekkee dëgg la ci moom it maanaam man jubluwu moon loolu ci lenn ngir lan ngir c'est un Thiessois ngir lan ngir ba ñuy dem fële di wuti maire bi ñun ñoo àndoon te ak jàppaleem saf na ci saf sàpp saf na ci sàpp loolu lu wér la waaye yàlla ma fi teg nag du ma dugg ci détails yi waaye yàlla ma fi teg nag te yàlla kese moom ma fiy jële j'ai toujours eu du respect pour le président Idriss Seck je garde ce respect ngir lan mooy nit conseil sax bu la ko masee defal benn yoon wala mu mas laa jox lu mu manti doon benn yoon li la war mooy nga ni ko jëf te yaakaar naa def naa ko yaakaar naa posé naa ay acte pour jëm ko téyel tamit njabootam lu ma mën mais je pense qu'il gagnerait à faire attention à un certain nombre d'éléments de son entourage mais comme man damaa génn ci ay xuloo ki werante bu ma bëggoon defante ak ñoom dinaa defante ñoom ba ñu xam ne defante naa mais damaa newatul ci loolu damaa newatul ci loolu ah bu fekkoon ne présidentielle da doon jiitu bu doon présidentielle doon jiitu nekkoon ci date bañ ko prévoir oon maanaam février 2017 moom laa doon jàppale loolu wóor na ma man yàlla dogal na législative mooy njëkk am législative nag ku may àndal daal yaa topp sama ginnaaw bu soobee ngir lan ngir maanaam suñu waxantee dëgg sa président la bëgg a doon bëggul nekk maire buggul nekk conseiller bëggul nekk député président la bëgg a doon yàlla na ko suñu boroom defal man nag damaa bëgg a représenter askan wi di ko waxal te ci assemblée nationale yi am donc bii di dem ak fal askan wi day am listam pour toogal askan wi léegi nag bu ma sañoon waa réew mi ñëw bokk ci bu ma sañoon waa APR ñëw bokk ci bu ma sañoon waa LD ñëw bokk ci bu ma sañoon parti bu nekk ci Sénégal ñëw bokk ci loolu ngir nekk ci côté askan wi parce que ku nekkul ci coté askan wi da ngay lii mënuma koo bañ a wax ngir maanaam defar rekk nu war dafay am waa réew mi yu may seet si di wax wax ju yiw lool di ànd ak yéene ak ñaan bu yiw lool muy ay mag di ay jigéen di ay ndaw yenn saay doo xam noo leen di def mais ñëpp xam nañu ne man ku ma mas a àndal askan wee tax ma ànd ak yow ku ma mas a bàyyi askan wee tax ma bàyyi la kon nanu delluwaat ci li nga xam ne mooy li essentiel mooy benn bi dañu dénk mission pour ñu taxawu Thiès li ma njëkk a bind bi may wut si mairie bi maa ngi ko bind te ku dem Facebook seet sama page li ma bind le 24 avril 2014 di départ Californie di waaj a dugg ci avion dama bind ne voté Talla Sylla c'est élire Thiès fal Thiès mooy faale waa Thiès ba pare tekki ne lu mën a nekk la kon xam nga baatu fal bi maanaam demuñu ba jël maire bi muy doog a ñëw ñi fi nekkoon ñëpp xam nañ ne benn affiche laa def ci campagne bi boo xam ne man sama photo ak sama nataal ak nataalu président Idriss Seck ci nekk leen rek laa ci bind mooy fal Thiès mais bu nu falee Thiès ba pare nag dañuy fal askanu senegal bu présidentiel jiitu woon na ma ko waxee woon présidentiel rek dama naan ko boo ma déglu ni nu def ba Thiès ñàkkuñu ko ñu def ko ci Sénégal jaarale ko ci yoon wi ak yoon wi ak yoon wi mais lépp nag ngir askan wi mais yàlla dogal na tey ji présidentiel nekkul à l'ordre du jour kon nekkuñu di wax ci loolu tey jii élection boo xamante ni askan wi day am ñu ko toogal ca pencu dañ koy tuddee sax pencu ndawu réew mi mais pencu ndaw askan wi la comme foofu lañ toll kuñ ci gën a jekk ñun ñi bëgg a fal askan wi ñun ñi bëgg a faale askan wi kuñ ci gën a jëkk bu ko defee ñun suñu responsabilité mooy veiller ba suñ ca yeggee ñañ fay yebal mu doon ñoo xamante ni dañu nekk de vrais représentants du peuple